asalaamaaleykum mbokk waa Bambey ñëpp ñuy safoo Bambey TV euh, image yi nag euh, yu daw yaram la dañ leen a demoon seeti loon Fatou bi nga xamante ni faatu Ngom di wujju peccar goom moom moo ko màtt ba dagg tuñam bi pratiquement lèvre inférieure bi lépp a dagg comme ni ngeen ko gisee euh, nii ci image yi euh, dañu ko ñawaat dañu for la nga xamante ni moom la daggoon ñawaat ko euh, mu nekk lu mitti porté na plainte nag jot nañoo waxtaan ak moom waaye nag ñu ngi ñaan képp koo xamante ni mun na ko jàppale mu jàppale ko parce que nag lii nii dafa laaj paj mu xamante ni paj mu mucc ayib kon képp kuy bon volonté na nga jàppale ndaw si ñu déglu ko nag mu expliquer naka la mbir yi demee.

est-ce que yaa ngi yëg métit sa yaram. dañuy ndànk rek de noonu. ordonnance yi nan la toll est-ce que famille bi amuñu problème di jënd ordonnance léegi yooyu. maintenant am ñu am problème jënd ordonnance ba tey. ki la mat est-ce que ay mbokkam ñoom ñu ngi ñëw si yow di di la nemmeeku wala ñu lay jox xaalis ordonnance

ma ne ko est ce xool rek dóor ko mu ne yoon new si en tout cas daal mu ko yow waroon woon a kalaam yi doon ndax sa doom bi sax suñu dóor sama doom donc su ma la koo kalaam ñu koo kalaam après si lañ commencé ñu xuloo noonu ñu génn si mbedd mi ma dem yeeyi samay bëy moom mu dab sa àll ba ñu daje seen man si lañ si ñu songo après mu wàtt sama bi ñun ñu ko wàttee bañu bàyyi ba tëmbi eh? la mu daw dafa tàqalikoo wala daa dagg nii rek léegi bi nga demee médecin yi dañ ko kii defaraat wala dañoo faj noonu rek dañ ko ci ñëwaat dañ ko ci ñëwaat mm-hmm. mm-hmm. léegi bi nga demee gendarmerie wala foo gendarmerie nga dem lan lañ la wax Mmh. donc ñu convoqué nañ ko moom. kañ nga def plainte bi. tey xeex bi kañ la am. àllarba. léegi nga plainte tey. waaw. convocation. kooku moom am benn kii bu ngeen xamante ni seq ngeen ko parce que d'habitude ay wujj ak ay yooyu ñooy dund façon dundin yooyu si mosu na a seq dara dara dara luy tax peut-être mu war a toll foofu ci yow. maanaam sa yàgg nañu histoire kay sama rakk jëkkër mu moo ñu këram. Hmm, kon ay wujj peccor la ngeen. Ah. bi loolu amee góor ñi lan lañ ci wax. mais góor ñi moom waxuñu si dara sama rakk jëkkër weer nañu kese moom moo ne day génn si kër gi ndax du fi toog loolu ko xëy ndaw si mu ngi seen kër wala dafa dafa génn de. mu ngi seen kër. kër kan la nekk kër gi muy seen papa ah kon bokku leen kër. ñoo bokkoon kër kay soir. ah ci li ngeen ci lañ. ndax moom xam na ne yow porté nga ko plan. xamagu si dara su bi dina wuy am day jël waaw paj mi tamit nga topp ko lépp loo xamante ni aussi askan wi mën nañ ci jàpp mm-hmm. euh, nga teel ñu ko wax parce que lii dafa sensible dafa nekk loo xamante ni euh, bu paj mi baaxul rek dalay indil ay complications mm-hmm. donc faxeel ba nga xamante ni fépp foo ci toll boo ci amee jafe-jafe sax nga faxe ñu yëg ko luñ ca mën a jàpp ñu jàpp ci mm-hmm. incha allahu rabbi. wax fan la fan la ci jëm kii sama set la maa jur yaayam léegi nag keroog àllam balaa toog ci fajar bu sama doom jee woo ma ne ma Fatou Seen da doon xeex ak kuur bi ba ca bi ba mu màtt tuñ ma ba mu dagg ma ne ko xeex eh, mu ne ma waaw ma kon kay décoré ngeen di ma ko nëbb waaye Fatou Seen mi kay mënut xeex ndax moom xamul dara léegi nag loolu bi mu amee comme ñoom ci biiru bokk la ñoo bëgguñoo wax dara ki ko def lii ba tey jaaru fa mbokkam jaaru fa lii tam la ca doon rafet mu jaar fa wala mbokkam jaar bu mënta ñëw xam nga du mën a ñëw waaye mu yebal mbokkam mu ñëw seet si ko ba xam ci lu mu ne wala ay mbokk ay goroom a nga fa ay goroom itam waa mu ñëw seet si waat ko ba xam li muy dund ci kër gi waaye kenn ci ñoom ñëwut bu dul hôpital kenn du fa ñëw keroog bañ ko indee lañ ko fa bax léegi nag ñun tam bëggoon nañu mu rafet ndax mu rafet rek kii jëkkëram mooy magu ki ko greffe gi ñoom loolu bu amee ñu ci biir kër gi man fu leen tege rek ma ne leen yéen ay goroom ñu nga fa ñaari goro yëpp a ngi ci biir kër gi lii bu amee ay xale di jote yow teel a la wax yow mii borom kër gi balay lii lépp di am comme ñoom kii nee na moom yàgg nañoo jote léegi moom bu leen waxee itam duñ ci def benn interview yi ñoom dañuy toog di seetaan ba lii am nag kenn ku ne ferenkulaayu ñu ndax loolu rafet na loolu rafetul ñun ñëpp ay nit rek lañu te kenn ku ne war ngaa gis sa moroom mu rafet ndax nett li ba ëllëg day ñëw ñoom liñ def nii xam nga ne bu benn xalaat liñ ko faje nag man fekkewu bu ñuy bind ordonnance fekkewu bu ñuy jënd ordonnance foofu moom mënuma ko xam waaye damaa boobu daal moom ñu topp ko ba moom mi li war ci moom moom mi ko def lii ñu topp ko ba mu faj ko topp ko it li ci yoon def rek ñu xam ne lii la ci yoon def doo yoon def ci wàllam ñun luñ ci mën a nekk rek ñun nangu nañ ko buñ demee ba si yoon bu ñu tooñee dinañu xam bu ñu tooñee ñun dina xam waaye nañ ko topp moom mi def lii kooko ne dafa xaw a gaaw mu génn hôpital koo xam ne dañoo dagg duñu ba mu tàggaloo ñaari fan nga nga nekk hôpital ñu génn waat la waaw xam nga loolu itam ba tey ci docteur yi la rek xam ko téye te tiim ko ñaw ko ne ah lii kat na kii warut a mën a dem kër bëgg boo demee ci kër léegi bëgg a nekk bu di wax ak gone yi te ko ba dañ ko faa war a téye bu doon ñaari fan wala ñetti fan sax ñu téye ko fa waaye ñëw faj ko ñawal ko rek ne ko demal nga dem ñibbi di ñëw di jël radio loolu du faj ñun def nañu waaye docteur yi itam def nañu ndaxte yow mi tiim malade nga gis malade bi ni mu mel nga xam li muy dund waroo koo defee nii war na cee mën def loo xamante ne moom tam da ciy def kemt laay kattanam ba ñëpp xam ne moom it docteur la waaye sonn na fii waaye ñoom nag ñoom ñoo jiitu ji hmm. dem wax fa. mu am fii ci département bu Bambey Bambey Info nekk fi Bambey TV Vallée nekk fi. ñi nga xam ne ñoom ñooy ay euh, autorité bamba yëpp di la seetaan lan nga leen di wax pour ñu jàppale xale parce que lii dafa sensible parce que bëñ la ah, ma leen ci ñaan rek ma ñaan leen ñoom itam luñ ci mën a dem rek ak luñ ma ci mën a jàppale rek ñu jàppale ma ci ci kaw pelenti beeg yoon wi ak faj bi luñ ma ci mën a jàppale rek ñu jàppale ma ci loolu bëgg naa loolu waaw